may attaque ma call di director of Clinton Chabi ne ko Fitzgerald mu ngi tilim mooy wax naa supervisor yi ñu dem fa yaa ngi am supervisors yaa ngi leen a fay salaries they not do it the good job nga teg action loolooy the meaning of the having that establishment committee to discipline workers who are not doing the right thing council bi dafa am a local government act bi nga xam ne moo ko govern moo yóbbu di council if you don't abide by your local government ak your council won't work maslaa bi lañ war a bàyyi ñu liggéeyi baañul nañ bàyyi di tiim nit yi naan ne kii def ma kii kii layguma naka la la di laygee su fekkee ne implement loo di reality we all took an oath and make sure ne we will work for our country and there li nga xam ne moo ñu govern all of us we should abide by that law see to our local government ak liggéey Banjul This is a big disgrace. Coming in Banjul Yange is more than a garbage are not collected normally. Look at the street. Things are not going well. Constrained with this COVID-19. COVID-19 Bange spread. Mbalit demut. So let's Jema Nangian try pour Banjul Nunambulante. Happy to work together. Pour Gisne Banjul Demna. This is not one man show. One man cannot run Banjul. It's with the councillors. You have nine wards. When you come to Banjul Central, you have Soldier Town Ward. You have New Town East. You have New Town West. When you go to Banjul North, you have Box Bar Ward. You have Crab Island Ward. You have Kampama Ward. You went to Banjul South. Then I'm Half Die Ward. I'm Jollof Town Ward. I'm Portuguese Town Ward. This is nine councillors. including four nominated councillors ñooñu rek war nañ laa doy pour liggéey dem waaye soo ñu invite invite si si liggéey wax bu sew dafa am si council nit di nañ continuer dina councillor yi juboo wuñ déedéet maire bi sa den moom waaye su ñëwee in terms of dialogue dañoo jotee te dialogue foofu lañ war a waxtaanee xam suñ problème si constituency ñu fata But if we are not doing the right thing, we will not see ourselves into the right place. And this is Banjul. nañ leen liggéey pour Banjul dem nañ leen bàyyi di xeebante nañ leen bàyyi nit di yooni nit pour nga ñëw sa di ko castigate sooy wax da nga war a xam li la óor da nga war a xam wax loo xam ne da nga waatoon alxuraan waat alxuraan soo ko saamut xaw ma lan ngaa saamati suma pos, mo ma doy man councilor utiwuma fa halis di su don halis du ma nek e wot because suma jabar mu nga dikka Manhattan New York so la te everybody fi dañ ma dee yo lu te nga sa jabar Manhattan nga bugg a nekk a e ward councilor ma ne ne Banjul su demut def ma confuse suma ma tok suma jabar sa li ma ko wax problem of value is in my head and ma believe ne I have a role to play si development yi Banjul lii moo ma fi teg community bi suñ ma niidatul duñ ma votaat in I will leave them xam ne ñii niidatuñ but hence community bi pare nañ pour jox ma service bi pour ma def ko I will do it and I'll make sure ne dinaa follow up li ma war a follow up soo gisee nit ne tunkoo moo dee soonal meewe xam nga lu waral loolu dëgga booy pour wax la digga li ñu am e bi toog fii liggéey ak di local government act always liñ la dee wax mooy nañ teg local government act ñu liggéey naka la ñoo liggéeyee suñ idea li nga xam ne dañ ko fa teg pour govern ñu jàppale ñu ni ñoo liggéeyee ni ñoo demee loolu soo ko tegee ngaa ñëw wit another idea rek problème ngaa indi difficult problème man suma toge ma tok ci biti ma gis ne ñu ngi interviewé Gambia bi ma ngi tok ma gis ñu ngi post ci Facebook Development bi nga xamne ne mu ngi dem council Development bi nekkal development développement xamne xam ne man xaw ci dara man dama tok rek gis Facebook ñu ngi wone ne City Council ñu ngi def A B and C and I am not informed naka nga gisee suñ amee général council mitin dama am pour kuweeri loolu wan leen li ngeen def du yoon keroog toog naa gis indi Facebook yéen a ngi fa publish something and I'm not aware lu tax ngeen publish loo xam ne ñun xamuñ si dara anything you doing at that council level dafa war a nekk a general council dialogue boo xam ne we discuss it together ñu puus ko mu dem not everything but most of these important things dafa war a jaar through di council ñu discours ko ñu puus ñu dem waaye suñoo am council goo xam ne duñ dee am a big representative from ministry ñun empty councilor si neen ñun ñooy toog with the deputy mayor deputy mayor ak councilor si meeting loo fa discourse duñ ko implement because duñ ko téye lu am fayda waay soo amee all directors sitting at that general council meeting with the ministers representative then the council bi dafa dox hardly ñu ama mayor meeting ñu ngi géej toog ak mayor bi directly septembre octobre bi boy di dem China waaye binduñ ñu leeta explain na luñ ma man kenn waxut ma lana tax meyo bi du dee tooga ñoom def ñu dee bàyyi député meyo bi ñuy mitin ñu ni neen lu wara loolu I don't know binduñ ma leeta wax ma ko su ma ko maa wax mooy bindal leeta xanaa man tam dama dof comme di bindal leeta di bindal leeta rek comme ku dof léegi-léegi jarul bindal leeta da ngeen a dialogue ngeen discuss issues léegi-léegi du dee jar bindal leeta lu nekk su fekkee ne bindal leeta la kon leeta yi dañoo jeebi ko every ngi am loo war a bindal leeta issue about country. So we can continue doing that. So nañ jàppale wante ñu yërëmante central government bi tamit gestu council si di dem di investigate di waxtaan ak gaay ndax problème bu mu am Banjul si difficulties lañ nekk aduna bi yëpp lañ séedoo maalo Banjul séedoo maaloom bi mu ngi mel ni tukku su anything you are doing if you don't do it into Nimwara Demerek, you have a difficult problem when you are starting anything oil sa councilors talk to your councilors councilors yi ñooy sa lieutenant sa councilor yi ñooy dole. talk to your councilors anything you are doing in Banjul mënuloo koo discourse sa kenn keneen Musaf dan daan councilors ñaaka dialogue bi moo tax yëpp si nekk tukku buna kan si lo ngi tok suma won man ma ngo tok suma won nit yang ma attaque nan ma waw ñu ngee joxe ticket joxuñ ma ñu ngee konte konte wuñ ma man yegaluñ ma bolé wuñ ma mais explain si audio bi nit di dégga nit yang ko dégga pandéri ñay mu government yëgalu ko moo tax Hana keneen xanaa ticket yee maloy fan la dem du ci kansul bi la dem su ma lay yëgalut naka la bagage ñëwee si council bi ticket yi ñëw nañ fa ñëpp dem nañ fa oyal sa councilor si wax ne lii dee la ma government jox te maa ngi bañ problème yónni naa ay xalel dem nañ si gox goxaani compté nañ ñoom lii lañ am waaye government ne jiiboo seen 2013 la ñoo dipene sa councilor si jox idea mu nekk a council discussion nga seen ko ministre bi yóbbu si ministre den suñ dialogué foog naa li ñoo taget yëpp den ko doon mun a amité coow du am waaye you do it alone daf ko do alone we were invited ne three months ne dafa taxawal loo xam ne ñoo ko defaral e fundraising utal ko xaalis pour fiit Banjul invite nañu meeting boobu meeting boobu biñ ko atténé fekk ñun tamit ñu ngoo dox si goxaani suloo siyo yi sa soo xoolee yëpp maa ko fi teg ñu ngee teg si yi di jëndal nit yi ordi sawel pour nit yi raxas seen loxo for this covid 19 council def ko doon def ak yeneen team ñun ñu gis gars yi di ko def ñun tamit ñu xam ne we are councillors we are not part of that team bi koo def the distribution of ah, buckets yi nga xam ne mu ngi am taab ñu defaral ko suñ boppa si biir loolu bi ñu ooyee dat meeting ñu jox ñu ku nekk 20000 dalasis pour ñu yokk si li ñoo jënda parce que nit yaa ñoo ñaan dépasse nit yaa ngi toog politicien ñëpp xam nañ ko African concept maa la saani loon karta de tey aw ma dépasse yow doo ko altu foog nga déggoo moom ndig la sa dikkandoor la moo la saña wax soo ko mayut bul ko altu soo amee foog nga mayut ñooñu noonu suñ toogee problème am kan sul jola twenty taw ñu jënd si ICO e jënd si am um, sanitizer jënd si ordi sawel dégg la twenty taw is small money doo mun a am li nga bugg yi waaye at least nga jëndaale benn ten twelve CO jënda box yi sanitizer bi dee jar two thousand jënda bilig bi ordi sawel bi jënda détoy la yooyu ngaay ko mixel gaay man noonu laa def tegal ku nekk oh, yàlla def nag Muhammad Ndaw di member of parliament for Banjul Central Mohamed Ndaw from PPP bokkuñ parti de mu ñëw indil ma 16 siiw bu àndaa sampu mu tegal ma ko mu ne ma li ngaa def dama si kontaan dinaa yokkandeku jox la lii tamit nga tasaare ko ning nga koo tasaare bi ko man aw ma benn ko man damaa teg fii damaa teg be feneen ñoom Fat Diop Spalding lañ dëkk goxi keneen la waaye garaawut man lañ kool ne ma may ñu siiw am na rajo bu la si sa gox si doo la siiw soo dugal nañ fa yëpp apart from loolu ñun oyatuñ ñu council depuis three months back lañ gëj a am sa general council meeting depuis février mooy suñ last general council meeting bi covid 19 bi taxawee ba tey amuñ dialogue e general council meeting to discuss this issue ñun dañ gis rek BCC is doing this the Lord Mayor is doing this the Lord Mayor is doing that lu ñoo def dañ ci wara a añaan dañoo joy dañoo dem toj suñ bopal dañoo tok suñ koñ haar waaye ku ma ñëw tey laaj ma dama ni awma malo awma ticket awma li lima la dee moy mooy wuñ ma si si luñ la wu dal ah ku nga si mo na mané la dialogue always mota issues du dé mëna dem Banjul li ngee bañ a waxtaan di gisante ne dañ añaan rek duñ dem dafa añaan lum la nit ki di añaanee kilee nga base kilee ngi Bansang kilengi ngi Abdoulaye ngi Central do leen dé boka ak bo lék na naka so nit ki wara lañ wara def ñu mëna understand wa bo wuñ masi li mala explainal nonu la démé binduñ ma ben lettre ne ma kay binduñ ma ben lettre ne ma bokkuloo ci waye you ñu oo ñu ne lii moo waral taxaw dañoo ut fundraising pour lii waaye bañoo ñoo suñ gox yi di continuité sax man dañ ma kool ne ma di nga gis ay CSO that is the civil society organisation si liñ wax an man am not seeing civil society organisation with them gis naa re youth si nekk around di dugg di continuité soo lu ma seede man yóoni wale ooy ñu mitin wax ñu ko bi ñu ooyee mitin mooy ne dañoo def fundraising pour dundal waa Banjul waaye ooyu ñu mitin wax ñu ne nit a ngee ñëw konte dañ ñu kool man soori dañ ma kool ne ma am na ñuy ñëw sa gox dinañ fa ñëw konte ay nit pour nga xam ne ñu ñoo leen yónni balaa ngeen a wax ne gis ngeen nit parce que ñun su council meeting amee most of man suma maasi li ma de kuwéri dama dee ne dama gis lii ak li suma gox lu ta informu leen so moo tax ñu xool ma ne ma di nga gis nit yu di compter kër gi households nga understand ne ñoo leen yóbbu. fa moom laa la waxalal always si liggéeyukaay. Mhm. boos bi su xaajee liggéeykat yi rek difficulties dafa am liggéeyukaay ba. su xaajoowut tam ñu mhm. ñun kansilo si mhm. billahi suñ tasee dañ dee bigobante te dañ dee seeti wante time to time waaye soo ñëwee in terms of implementation at council level séparation def dee am ndig dialogue du dee am yow da ngeen toog gis ne kii dee informe nañ ko mu liggéey liggéey why man as the ward councillor of Soldier Town was representing my ward at Banjul City Council, I was not informed. I was called by the deputy mayor, ne, there will be some people in my ward to do some surveying from house to house, to count the households. I was called by the deputy mayor. even bi ñoo séedoo maalo boobu koolu ma de waaye daf ma text because councillors and the mayor dañ am a page whatsapp page fala saani message seen fa message bi wane ne government joxe nañ maalo te maalo bi dinañ ko seedoo waaye government dafa wane ñana war a am te njo only 60 percent te CSO bi ñooy wër seedoo ko kër kër loolu lañ ma kool ne ma dinañ seedoo kër tu boobu tamit soo wiñ mi lii suy xew yëpp war a oote general council meeting ñu dialogue ni kon difficulties bi du doon am tey mu ngoog suma goxangoog soldier town ward soo buggee nga dugg kër nga laañ leen lu tax soldier town ward is not part of package bi jógee government it's an issue ah, ma toog council du wax yee saa dama war dëgga de suñ into council meeting dañoo waxtaan dega, suñ waxtaan so ma méré man fan la ma yóbbu parce que ana suma gox ana kana fi am solo mo da ñuy dee dama am meewe bi problème am meewe bi problème we are good friends bokana ci campagne am su ñewé into issue of the local government a dañoo am problème personally we don't have problem in the local government act isu falade amee problem dama tukan old my brother I took an oath ah su doon duñ dee jël oath kañ ma toppa si li nga buga waaye dañ jël oath te oath bi du yow yaa ko binda yàlla lañ jël alxuraanam bi teg ko ne ñu waat soga def liggéey ma waat tàmbale suma liggéey nga ne ma tegee bug bi noonu maa bañ suñ ma dimbalewul loolu seen affaire rek man maa ngi am doole liggéey du gis nga bi ñoo ñëw fii léegi nii la Hadim Gaami jógee fi ñu ne lu tax Fitzgerald tilim ma ne ko mu sponsor ma i bale yooyu yuug si àngoog bari fii nañ ko bale mu set dimbale wuñ ñu mooy doorin bi foo ñu am one year six months sax ah. gars yi jënd nañ moto but it was not discussed at general council level lii laa laa wax daal moto bi ñi leen ngee wax 4.5 ñi leen ngee wax 3.5 million. kon dëgg la mi dafa jënd moto. dafa jënd moto mooy Prado bi moo dawal mu ne ndig bale na le baaxut dafa jënd bu ees with the difficulties xaalisi tukki yi sax dañ ko waroon a mun a wàññi sa dimbale Banjul ñu am suñu own garbage collector collector ba Banjul City Council amaluñ seen boppa benn moto bi nga xam ne ñu ngi koo mun a collecté mbalit waaye sant yàlla si luwe yi ñoo luwe di try di collecte te two years a ngee dem and this hundred percent we are collecting from the people sixty percent bi dafa war a dellu si nit mooy ñu defaral leen seen service du dellu si nit yaa nga ñu bëri soo ne sixty percent to dañ foog ne da ngaa may leen xaalis non dama laa taalal lampa dama laa kollegal mbali dama laa setalal sa paax yi nga xam ne njirim lañ famille yi amuñ doole nga boole si ñooñu fayal leen school loolu yëpp mu ngi nekk loo xam ne si 60 percent boobu la dee jugi so council su amee difficultés mënuñoo accoyal suñ boppa moto a ah, loolu dee moom damaa ne council bii moom yan nañu yàlla musal because time in life yan na koy yàlla yërëm daat boobu nit yi si biti dañ daan ne dama dee jotee paa waaye paa boobu daf ma bugga comme doomam caat la ma dee ooye paa boobu saa su ne lim maa wax caat dalal teyal sooy wax nit yi dañ dee foog ne da nga mer gis naa ne doo dee mer waaye danga dee wax di yuuxu pour nit dégga li ngaa wax dig da nga déggu si Pabi sa yummaggi seedina reedinama lagamudinama ne caat way su ñewe into general council meeting dañoo am isu parce que general council da ngeen war di am isu yow sa nyungla ñu ngi la jox xibaar kii xam ñu ngi ko jox xibaar kii xam ñu ko jox xibaar ñun ñëpp ñu ñëw dajaloo am e general council meeting pour ñu dialogue si loolu booy loolu du easy de du easy de foog mu nekk dialogue boo xam ne di ngeen xëccoo wax jurin he jowa yow so fa joge si kantul mi nga dem tok ne diw sangam dafa bari wa mom def de indi problème yow ya am ne kaniti problème because during a e general council sittings yow so waxut sa opinion sa colleague councilor mu ngey wa opinion am ah so ko si dimbalew ngay ko say again then it's up to you why man hence ma ngey tukan o di nek a councilor e the reality I will follow the reality up to the last uh, block drop of my blood dëgg rek laay toppa demeewu ma kansul pour ñuy ma tukkiloo demeewu ma kansul pour ñuy maa jàngali la ma jànga doy na suma knowledge bi fii la em fii laa koo mu dem dig maa ngi am 55 years li ma dese bariwul man li ma xalaat fu mu ne nii mooy ni dëkk bi di demee ka am député meew foog naa man itam boo naa si ñu ko votal ndig dañ ma oo oh, kon bin ba ne may votal leen ko mu nekk ko nekk na député meew oh, dee naa duma nge dunda sunne mer lolou nonu ni kon ci dorine bi lay mer bi duma ko votal it was unanimous bañ démé Atlantique pour dem vote for a deputy mayor all councillors came ne nañ len agri ne mu nekk deputy mayor man dawuma ci ken won ko né dama bugg a deputy mayor because amna di experience of 15 years being at that council su kéré ñëwé ko amul experience ñu jox ko deputy mayor wursagam la wursag moo dee joxe position apart from money, ala win lo na ma election li deputy mayor di am lolou the da ah. fa win election ma win election. Deputy mayor sa, so ko neke tamit anona problème la bi nga xam sa yang ko jox sa bopa because number two do mu na concentrer tout mon ci sa go hana on lesson until nga jël sa world development committee ñu concentrer tal la ci sa world level nga mu na run the things at council man aman an active worker am a field worker man balama ma kontaan nga dugal ma ci field bi may raagi ruur su ma nekkee député mayor dama liggéey su ma nekkul député mayor dama liggéey council ma council bi pour job man I know this council I know the local government act lola la di wé musuma wéedi wante kenn loo ne is not about the local government act musuma ngaan kansul si mitin ne yow député mi yow dama laa rasal lu tax nga xëccoo suma place xanaa man suma jaame kunda la ñooy oyee Banjul City Council Banjul City Council is called the council du suma bu yaay du suma bu papa ku nekk député maire yu di saafit yow la yàlla wal bi na ko sa jébi ne di nga nekki député maire waaye yàlla dafa ne man damaa nekki councilor nekk naa ko ñaari yoon mm. loolu moom is out of the topic xam naa ne loolu ku ko xalaatee moom génnee la serial ndik añaanuma dama fi am team biño ñoo pignado Pignados yow you know su don dama buga wonew ma don nekka di team manager because man ma pay di registration fee Force best yi ya qualifying round ma ko jinda su don tur ma nekka di team manager Why? ken xamutoon ne man ma amé team ganaw post laa dee togi. I'm not working for a position I am a good worker working for my city including my country. man de mer te ma wax lu tax ma su ma liggéey nga jël ko jox ko keneen di ko fay te man yaa ngi ma fay already maa ngi toog joxuloo ma liggéey nga jël keneen di ko fay jox ko liggéey su doon yow doo mer den dana fay waxuma ne council baa leen a fay de bot ñoom liñ organise ñun waxuñ ko we don't know why they are they've been getting Bigadi konté kéri ñu ngena fay 500 idi. They were they are paid. Defuñ ko volunteer de. Fay bi fim joge xawma ko. Ndi council ba ngay receive malo, sukur, halis, diwlin, ganar, lu neka Musuñ ma o wax ma halis bi nakala ko gay di defé sa ak malo yeyi. way ñu ne pour dundal bañu. So fiñ leena jëlé halis bi di fay. Amuñ general council meeting pour waxtan lu. nga suñ amoon a e general council meeting I will pose them that question xaalis bi dem di fee fu mu jógee ak yenn seen organisation bi ñaata xaalis ngeen si téye we are not told amuñ meeting pour waxtaan ñu so man Tunku xaw ma fu ñu xa jëlee fond I don't know I'm not told I was not called in a general council meeting to tell me ñi fu seen xaalis bi di ñu ngi leen a fay laajal gaay demal nga laajal nda fay na ko gaay waat dinaa lejante nag di slip fi gaay saynee nag ma indil la ko inshallah de abin pen bu gaay ragal kenn añaaneewu leen kenn soxoreewu leen they didn't make that mistake it's not from them ñoom amuñ benn problème a ñun de non bot liggéey bi ñoo def ñun ñoo leen ko waroon a santa ñun kansilos ak meyo bi it dafa waroon a nekk liggéey boo xam ne is comme like ñun ñëpp a war a liggéey together. chain work la waroon a nekk warut a nekk rek di meewa biin taana CSO bi teg leen fa ñana taana CSO bi na nii lañ dee taanee civil society organisation dañ dee dugga nga jël si groupe yi everybody wan wan wan wan ni nga tasaare ñëw oo nga wax kansilo si ku nekk jola ñaari nit oo benn nit even they gonna do it for voluntarily at this council level like the ward, uh, ward man, am now suma ward development committee. I can do the job with them without uh, being paid. Because the World Development Committee is a volunteer group. They don't get paid. They don't benefit from nothing. So issue bi yëpp loolu la dañ ñu war a inform ñu toog wax a gaay ñu invite xale yi xale yi suñ xaleel lañ man maa xale yi nii yaaga nañoo liggéey si baañul Youth Committee we no most dem them through that Banjul Youth Committee te that member si la use rek di dema ñoom waaw nit yi ña nañ continuer di wa because kenn mënut a téye géeme ñi waa Banjul kuy wa dégg naa nit yaa ngi because bugguma seeri ak ndik i xalel lañ suñ déggee suma kaadu foofu mun nañ maa tontu o oh, mun nañoo misinterpréter suma xol because li hew moy mandama de wahe suma diga yewit soy wax di ma tontu tontu ma si diga de bul tontu si fen i've been working with this banjul youth committee youth for several more than 10 15 years di dama gay passé ban sang di atel many nekof si nga xamne def de hew way respect rek la muna ama gay ku si am problème suma si joge dama si de muna jog so tay this program Covid 19 du am ñu taxawal a Covid 19 sensitization team génnee ñu si man ma am ay problème duma ko def still suma ndoo lañ suma jarbaan lañ suma doob lañ suma raka lañ seen job bi duma si interfere nag because I'm not part of so man li ma comment gaay success in what they are doing lii moo nekk mbir mi daal. waaw métti na trop xam nga liir yëpp mu laa won ne la tunkoo rek ndekete fii lu at the council because people bi suñ bàyyi xel man rek lañ daan diga may wan dig man dama am experience I was there before I was there as a worker I became a councillor I became a councillor again ñoom ñu ñëw nekk for one time so ñoom balaa ñoo mun a wax foog ñu miin council soo demee ba liñ sa local government act ba ko xam rek doo jëlati nonsense te li ma wax mooy kansilo si niñ miinantee niñ jàppantee nii ñu continuer di liggéey together ñu ni neen la meeyo yi dañ ñëw dem ñun kansul bi ñun si bi rek lañ dëkka witindi municipal ñu ni neen ñooy dimbale wante li ma wax gaay nañ continuer di liggéey xaanin golof su Oesa, nit ooyee wala yen yeb sen boss ok na si kansilo ne ko A B and C wax ko ne ko haral ñu o kansilo si ñu tu together billahi wallahi tallahi bala ma ham ñu ooma koona ma pour dara nga diga lima wax borom moy nañ o kansilo si ñu def A B and C man loolu la gum ñu kansilo si jog nañ dem nañ China bima ñëw dama ci contane bi ñoo dem ma ngi si kontaan fa nekké ma ngi comment from them. man ma ngi suma fil di liggéey amé wot kan lo liggéey ba ma ginal tok sa yo ma tap tabalé dama jox ma liggéey so last word yi maa wax si biir loolu tamit wonné nañ leen liggéey together ñu mëna am bañul biñ buba ba paré residential area yi nañu ko borom sto yi bayil buñ jël suñ bañul xaajal ñuko nañ ñu ñu central government na intercept dimbale Banjul central government bi na gestu council si di liggéey ak gaay hand in glove na central government di ku council di am constituency nañ di am dialogue with the council si tamit isu bi ni man duma blame government duma blame kende de council bi lay blame because kansul suñ la ooyee ne la abc oyal sa kansulo si ndañu mun a neetali si biti xam nga waxi lu ko bari lo so len mitinu nga dega ko si biti danga koo joowee benn boor kenen ko fenen and this is the issue bi de hew Banjul lo wara a discours sa kansilos, so ko discours sa tuya ñoom ngeen discours ko ñoo ñu loolu rumo lañ ko dege comme li ma la dañ dé tok di gis post di general council ñuy post si internet si li daw kansul te ñun duñ yëg as kansilos so council is not one man so, let's work together nañ gis suñ Banjul buñ gis fenen ken xeetut ken fi ñun ñep dañ jogon taxaw si ganaw ñi nga xamne ño tok pour dimbalé len ñu mëna tok toog biñ toogee liñ waxtana gaay defuñ ko di gestu Banjul di waxtana community di waxtana ak di waxtana nguur gi léegi-léegi yéen a doo ko mun a dem sa si nga yónni sa ne leen ne dem leen miti government abi an si nga binda leta loolu baa ko loolu yëpp daf dee yóbbu dëkka ñu bàyyi hatred bi ñu bàyyi siisante gi hmm. fii nguur la kenn mënu koo lekka mu jee luñ wax nguur kenn mu see siis kenn soo ñëwee département kansul rek nga mun a liggéey ok maa ngi liggéey government xam nga ne kansul laa mun a am de munu maa dem liggéey ji state house munumaa liggéey ci finance munumaa dem poste munumaa dem GRA council rek laa nekka so nañ leen bàyyi si sante yaatal liggéey bi ñu liggéey together buñ soxorante council bi si déegoore mun nañoo create i résidence waa Banjul am dëkkuwaay te duñ toog ñu ngi am empty lands ñu ngi am spare lands moo tax ma ne la dialogue we are not on dialogue fekkeew ma yëguma te ma toog rek seen ñu ngee sampa benn store boori National Assembly ñu jóg dem national physical planning and NEA pour explain a land, why that why stop nanko, because everybody understand na that area mu ngi spare SPA land why so waxee lii rek nit gis ne against kenen, nañ land bàyyi su nit waxee ñu ne mu ngi against na nit di toppa dëgga na nit di déglu dëgga na nit di xam dëgga ñu bàyyi di soxorante si dëkk bi ñu dem da dëkk bi mun a dem one man show la maa ko wax man général respect thank you 100 percent